xamante ni initiative bu rafet la ndax tey ñoo xamante ni dañoo génn àdduna ñu nekkoon monument biir géejawaay ñu tuddee leen drapeau du ma laaj lan nga fiy def mais boo yëgee loolu lan lay def ci yow. waaw di ci am contentement ak mbégte rek bàyyi ji maa ngi lay nuyu xam nga di ci am contentement ndax wax dëgg yàlla amata lii ñu xam nga monde la ko defal na ko géej waaye mais monde lamb la ko defal ndax paa yi wax dëgg yàlla seen doole yëpp seen xam-xam yëpp ci lamb lañ ko def. kon su delloo ñu ko dañ kontaan xam di ci bëgg bu baax a baax di ko ñaanal journée mu nekk ay journée journée yu mag yi mu dem ba mu bokk ci promoteur yu mag yi ci barke Sëñ Fallou. am na solo keroog fii ci arène nationale da nga fay bëree Issa Pouye ko mu daanu Alioune foo jëm. waaw baa jili man fu ma jëm moom yaa ma gën a xam maa ngi ci làmb ji mbër yaa ci làmb ji képp koo xam ne làmb booy maa yóbbu raisonnable rek ci kàttan yaa pare naa pour bëri daa bëgg a dellu si waat ci làmb est-ce que Alioune Seye dina jël Zoss déggoo ma la man daal maa ngi fi pour ñëpp képp koo xam ne làmb boole na ma ak yow mu raisonnable ci kàttanu yàlla mu bëri ndax bëri moo ma yitteel. est-ce que bëgg na Moussa Ndoye. déggoo ma la làmb laay def jili képp koo xam ne yaa ngi takk ngeen fii muy yaaw jaa ba ci kaw képp koo làmb boole nag catégorie boobu nag faa war a jugee ñiy seetaan làmb dañoo war a xam Alioune Seye ci ban catégorie la bokk daa ci kàttanu yàlla néew ma fi dootu may kenn sens daa jot ñu may ma sens ma bëree ngi ci kaw ndax sama avenir yooyu dama ko dama ko maye sens kon il est temps kon gars yi may ma sens mu bëri gars yi ci kaw. waaw bëri nañ Moussa Ndoye. waaw ma daanoon waaw. koy ñaan revanche. waaw dégg nga ma fi nekk naan damay maye revanche rek ndax fu mu ne nii wax dëgg yàlla amatuma droit di laaj naan nañ ma jox diw ak nañ ma jox diw maa ngi pour làmb képp koo xam ne làmb boole maa yoo ci kattan yàlla ma bëri moom. promoteurs yi ñu ngi lay contacter actuellement. non ñëwaguñ nag. ñëwaguñ naa dinañ ñëw. maa ngi xaar maa ngi xaar maa ngi xaar waaw maa ngi lal bos rek loolu sax loo ko jëndee jar na ko waaw <laughs> voilà